voilà muy mbir boo xamante ne. Mhm. mën nañu wax ni que ci ñaari fan yi la ginnaaw benn live yu tar yoo xamante ne. wala mhm. boog ay live yu tar yoo xamante ne gis nañu. Cheikh Ahmed Cissé mi ngi koy dem xam nga Cheikh Ahmed Cissé nag il faut savoir que depuis mu am euh, problème boobee nga xam ne amoon na ko euh, ci wàllum euh, propos yu yu yu yu méngoog li nga xam ne daf ko takkaleeg alxuraan. Mhm. ba mu daal di ko jural mu daal di jóge ci dëkk bi ba daal di dem toog foofee ca États-Unis mhm. depuis booba tey peut-être jàpp na ni que bon il faut que mu gën a wëy di wax lu ko neex peut-être ñu bëree bëri jàpp ne benn mer la am. sénégalais yi voilà excusez-moi ñu bëree bëri ñu ngi jàpp ni que dafa mere sénégalais parce mm. que jafe-jafe yooyu bi mu ko amee sénégalais yu bëree bëri dañ fa jaaree mere ko ba loolu tax actuellement muy révolté wu foofee mu ne euh, di di di di mer ba actuellement amul benn retenu voilà di jàkkaarloog sénégale ngir rek mën a jàmmaaloo ak moom. di fan yi laay fam tar na de. Euh, man naa ci ay révél yu bëri. révélation yu bëree bëri yoo xamante ne def na ko. Euh, voilà te loolee eh, hmm. loo ci xamul euh, du sénégalais yëpp ko tooñ mais parfois day am ku muy jàkkaar lool euh, peut-être bëgg jàpp ni que moom kaa yi moo ko téye ci loo xam wala moom moo gën a Euh, wala moom moo gën a yor li nga xam ne moom mooy luy xaawi sutura ba jàpp rek peut-être day jàkkaarloo deflante ak yow moom nag gis nañu actuellement mu nekk en guerre contre ki nga xam ne moom moo nekkoon Californie. Mhm. ba wax ji ba mu déborder rek ñu daal di laal Doro yi ak ki nga xam ne rek moom moo di Clara Wally Seck. Mhm. Euh, ci la Adamo daal di mere fippu daal di dugg ci wax joojee ci noonee la euh, moom Ahmed Cissé. Euh, daal di euh, jàppante ak Adamo ba daal di ko xamal ni que euh, ki nga xam ne moom moo di Farba Ngom diggante moom ak Mia gisee wax na la ko ba moom Ahmed Cissé sax daal di génn. Mhm. jàkkaarloog Mia gisee daal di ko dut baaraam di ko xamal ni que. ki nga xam ne rek moo di voilà Farba lépp lu mu sekk ak moom daal na ko wax ki nga xam ne moom moo di Mia gisee boobule audio nag laa bëgg ñu déglu ci Ahmed Cissé li mu wax ci turum yaa gisee euh, bu ko defee ñu daal di ko déglu pour ensuite ñëwaat ci li nga xam ne rek moom moo ñeel euh, Mia Guissé ci bi mu génnee rek daal di tontu ci tuuma yooyu nga xam ne ñu ko teg ci ndoddam. Mm-hmm. Mia may lu bari te su Farba amoon sutura Adama du ko yëg doomi Haalpulaar nga Tukulóor nga. danga doon sëy sëy sëy bu metti ñu nga génn ci sëy bi Sénégal yëpp boot la ànd ak yow kon personnalité boobu nga amoon ak dignité boobu fexeel ba koy dugalanteel na am sutura ndax yaa moom sa bopp sa digganteeg Farba aadamoo xam na ko te bis bu jubawut ak Farba Ngom da koy wane ci àddina te am nga ay doom sutura da cee bokk xaalis bi la farba di jox ak lim lay def aadamoo yëg na ko te am na comme ci yónnee audio maa ngi audio yi say xeetu jumbax awd ak say vulgarité defut la star jigéen ju baax nga duma déglu sa musique doo suma star waaye respecté naa li ngay def te duma taxaw fu ñuy yàqee jigéen sëy bu tas nag warul tax yenn yi warul tax sa jëkkër ji nga tàggool ak say goro war a dégg lu ñu voilà muy ay kaddu gi nga xam ne moom mooy Ahmed Cissé ginnaaw euh, euh, bi mu jàppee ni ki nga xam ne moom moo di Farba Ngom lépp loo xamante ne relation la diggante mi yaa gisee ak ki nga xam ne rek moom mooy Farba Ngom daal dinañ ko wax aadamoo moom nag Ahmed Cissé ku ne xam ne ne actuellement dafa nekk en guerre contre ki nga xam ne rek moom moo di Adamo ba tax na lépp loo xam te ne jàpp ne que rek nii arme la bu mu am contre Adamo mën na ko euh, daal di teg ngir rek euh, daal di mën a koo gagné ci combat bi nga xam ne moom la daal di am moom ak aadama euh, loolee nag euh, bi mu jibee moom yaa gisee mi nga xam ne ni que rek depuis booba tey sénégalais ñu ngi ko yóndee ay lien ci live yi nga xam ne mi ngi am moom yaa gisee aussi daal na ci tontu moor bu fekkee baax na nga indil ma tontu mu yaa gisee bi euh, voilà donc moom yaa tontu na ci benn texte bi nga xam ne bind na ko ci li nga xam ne rek moom moo di compte euh, Instagram mi ngi xam ne ni que dama nelaw yeewu gis ñu partagé ay lien TikTok yu bëri ma dugg gis ay Mia Guissé Farba Ngom franchement tonton Serigne mënoon nga ma jiiñ ku nekk sauf Farba Ngom mhm. sauf nag Farba non franchement qui a l'âge de mon père au plus âgé même que lui mhm. nit ko xam ne man mësuma mësuma ko sax gis sëriñ bi boo joxee information saytu ko xool ndax dëgg la ba pare nit mën na yónnee vocal euh, bu tegu ci lu dul ay sos ak fen nga bàyyi xel nit mën na laa vocal pour yàq nit nit mën na laa message pour yàq nit nit mën na laa jox ay fausse information pour yàq nit mm-hmm. ngelawaay bu benn nit jaare ci yow pour atteindre ses objectifs comme ni nga comme nee nga yow doo yàq jigéen te da nga koy suturaal nga la na ci bàyyi xel bu baax dama leen di ñaan ngir jëmmi Seydina Muhammad génne leen ma ci seen yii dama leen ko ñaan tôt ou tard yàlla dina àtte dëgg bàyyi naa lépp si loxo yàlla donc muy ay kàddu Mia gisee ginnaaw bi ay euh, wax génnee rek di ko tuumal ci diggante moom ak ki nga xam ne rek moom moo di euh, Farba Ngom mm-hmm. xam nga Mia nag ginnaaw bi mu génnee ci mariage moom ak No Face keroog mm. maa ngi ko fi doon wax depuis booba tey sénégalais yu baree bari aussi même bu fekkee ne ñu bare bari ñu ngi ko doon support ci yoonam bi mu jël y en a des aussi yoo xamante ne mais bu fekkee ne ils savent toujours pas les raisons pour lesquelles Mia a mm, divorcé avec euh, No Face ñu ngi continuer depuis booba tey di ko attaqué mm-hmm. ci yoo xamante ne duñ ko xam xam nga néegu sëy aussi dafa xat mm-hmm. parfois mbir na ci am yoo xamante ne bu ko nit expliqué wul réellement les gens duñu comprendre bu baax a baax lan moo xew depuis booba tey dañuy dañ koy attaqué ak euh, di ko di ko critiqué bu baax a baax ci ni muy solo ak aussi euh, comportement yi nga xam ne dañ koy gis moom nag Mia gisee génn na tontu ki nga xam ne mm. mooy li mu wax dégg nañ ko di xam ne ni que ki nga xam ne moom lañ ko tuumal mën nañ ko tuumal keneen ku dul euh, ki nga xam ne moom moo di Farba Ngom bi nga xam ne mat na ko papa te mën na ko sax lu lu lu ëpp papa beneen bi aussi mooy que ni moom bàyyi na lépp ci loxo yàlla te yàlla dina àtte te moom Ahmed Cissé il a toujours dii que ne moom dina kaa ci lu nekk mais du mës a wax ci jigéen parce que tout simplement day suturaal jigéen. loolee nag euh, moom yaa gisee ni mu ko waxee nee na information boo ko jotee aussi na nga ko saytu ba pare. Mhm. mu mel ni man mi yaa gisee laay soutenir ci mbir mi. parce que alors waaw Moussa ma ma bala man à un moment donné la vie des des gens. des quand mhm. euh, xam nga nit euh, bu tëju ci néeg la muy def. moom la concerne bu bëggoon mu siiw dana génn ca mbedd mu def ko. Mhm. donc nit ki quoi qu'il advienne wala ki ni mu a nekk ci àdduna yow tu n'es pas. personne pour la juger wala pour le juger ko mun a nekk ci àdduna nekk nag euh, lu ñu la mën a def wala information boo mën a jot même bu nekkee information bu bu baax diviser ku bu bon téye ko parce que nit dañ koy suturaal hmm. len moo fi jar na ku nekk taal sa live loo xamal sa nit nga yàq ko man keroog euh, live bi mu def ci rek ay bar damaa choqué daf maa jaaxal parce que dama doon défiler rek euh, ma gis ko donc c'est des choses yoo xam te ne ça n'a pas d'importance quand même je pense pas que c'est quelque chose qui est utile pour nous wala daal yàq nit ban ban ban c'est quoi le but ban lëb lan lay bu bi yàq nit ak yow après nit ki lan lañ ci famille moom ñoo ci souffrir nit ñi dañoo am famille am yaay am papa ku nekk am nga actuellement nit ñi kenn wérut yow di nga jot information boo xam te ne crise ngay def boo ci demee nag te information ki wut yow lan ngay wax famille kooku dëgg la respecter la dafa demee loo xam ne Sénégal mm. ba bëggatuñu Sénégal yi léegi dañu yeewu te bëggatuñu nit kuy yàq nit te da ngay gis ni que euh, Sénégal euh, bu njëkk ba mënoon nga yàq nit ñu ànd bañ ci nit ki mais Sénégal da ngay yàq nit ki mais du tee ki ngay yàq euh, ci lañ koy gën a bëggee ci lañ koy gën a jàppee ci kaawum yaa gisee man je pense que même bi bu doon dëgg sax moo mm. tey elle droit de sortir avec qui elle am na ci droit bu baaxa baax damay gis sax ci commentaire yi parfois euh, ñeen ñi génnaat di daan Mia gisee wala ñenn ñi sax ci ay jigéen di ko xas mais Mia nekkatu ci buum su ko neexee mu génn ak ku ko neex. te booy seetlu ñi nga xam ne jamono gi ñoom ñooy régler euh, view nit ñi ñoo ëpp ay sobe li ma jaaxal nañ ma baal ci kàddu ñoo ëpp sobe ñoo gën a bon ku ku yàlla sàq te ñoom ñoo gën a mën a nekk ci seen ginnaaw clavier di yàq ay doomu aadama tey. génn ak ku la neex bu la neexee sax nga génn ku mag ki nga xam ne rek moom moo di Farba Ngom am nga ci droit am nga droit génn ak ku la neex nañu nañu may nit ñi en fait cest à man man dama gis ni leen rek la ñuy bëgg pour di bëgg di intimider nit ñi dafa di di leen di leen më di di jël seen vie di ko di ko salteel parce que mhm. tout simplement tey yow nekk nga ci vie boo xam ne yow kenn nawloowu la ñëpp jéppi nañ la ñëpp suur nañ la après da ngay bëgg après di génn pour di di di di di di di lëndëmal vie wu nit ñi di leen yàq donc Mia kenn ku ci ne gis na fi mu jógee te même ñenni di ko di ko di ko critiquer ci li nga xam ne rek moom mooy côté veste euh, ni muy solo. Mm. Mia il faut bi que bien avant muy dugg ci mariage ay rab la doon def. journal rabe rappe kenn ku ci mm. ne yaa ngi ko ci doon gis ni mu doon solo gis nga ni que dafa méngoo ak jamono gi ni mu soloo mm-hmm. xale bu ndaw la dafa nekkoon ci sëy suñ borom wéet na elle a le droit quand mu dundee comme ni mu ko neexee maintenant kenn ku ne am nga droit bu la neexee nga sëy ak paa bu am 60 ans wala 80 ans am nga ci droit. am nga droit génn koo xamante ne yaa ko mag lan mooy problème bi. alors gis nga ci chaque li may wax chacun se concentrer sur sa vie et sur ses objectifs et ses ak avenir am di nga tal leneen lu dul euh, impliqué wu ci vie wu jàmbur en sama benn euh, oncle la doon wax ne toog ci mbedd am cot la. boo amee looy def wala loo war a defee li nga toog ci mbedd mi ku romb nga wax ak moom. Euh, di nga tal leneen lu dul toog ci mbedd loolu lañ doon wax chaque fois kon xam nga képpul toog ci mbedd amul jot ci yenn yi chacun est libre de vivre sa vie comme il l'entend pas de question ngeen di juger benn jugement am te kenn koy def only God moom rek ko war a juger mais mais ñoom ñu ngi sax di dugg ci vie nit ñi sax ñoom kenn da leen naw loolu da ngay dem ba benn moment <laughs> sa vie day yàqu amatoo benn espoir dans la vie amaana mi yaa gisee ba boo xoolee sa sa vie am na am na am na lu la doy mbubbu. non dama ne dama ne du dama ne dama ne la plupart des gens yi nga xam ne ñoom ñooy génn di def ay live di di di di di yàq deru nit ñi c'est des personnes yoo xamante ne amatuñu benn confiance ci seen bopp amatuñu benn espoir ci seen vie parce que tout simplement dañuy doon nit ñoo xamante ne seen vie xoolal ci ñaar ñi nga xam ne ñoom ñoo jàkkaarloo di yàq deru nit ñi. ay nit la ñoo xamante ne kenn nawlootu leen parce que mm-hmm. ñoom déjà sax pour teg seen tànk fii ci Sénégal c'est tout un problème mm-hmm. amatuñu espoir pour dundaat ak nit ñi tout comme ni ñu doon dundee parce que nit ñi bàyyi nañ leen yow déjà yow nga yow sëriñ nga woon <laughs> diggante Kaolack fii mbugal nañ la def nañ la fii lu ne depuis booba tey nga nekk ci dëkk bi voilà ba génn dëkk bi mm-hmm. yow amatoo espoir que Sénégal gii di nga tegaat sa tànk après yooyu yaay yaakaat donc nit ñooñu la parce que ñuy dem ba benn mois seen vie dootul neex bëgg a mere ñëpp bëgg kenn ku ne ñu bëgg a yàq sa donc Mia foncel nekkal ci li nga ne am nga droit génn ki nga bëgg même bu doon sax naankatu sàngara am nga droit nekk ki nga bëgg nañ bàyyi nit ñi ñuy yàq nañu bàyyi nit ñuy yàq seen der kenn ku ci ne am nga droit nekk ki nga bëgg a nekkal. Mm. voilà.